salaamaaleykum wa ahlul lamb salaamaaleykum mbokk internet ñi nga xam ne ñooy safoo di seetaan Sénégal set ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar tey ñu ñëw set suñu suñu papa Père Sala Bigué pour mu ñëw farañ fàcceel li nga xam ne moo jot a sew si wàllu lamb bi Père ñoo ngi lay ziar. waaw Ibrahima Ndiaye Pape Ibrahima Ndiaye maa ngi lay fay di la nuyu baax di nuyu waa senegal 7 yëpp di nuyu internet yi ñuy seetaan di nuyu ma Dieye di nuyu Sénégal gépp ñu gis euh, comba affiche bu mag bi dox ci diggante Balla Gaye ak Boy Niang. comba boobu na ko jàngate waaw comba boobu comba bu mag la d'abord man sax maa doon def face bi keroog Sorano. Mhm. man ak Cheikh Sarr bu Sen TV. Mhm. bon combat la boo xam ni amateurs yi ñoo ko soxla. Mhm. parce que Boy Niang euh, xale la mais dafa def ay jéego. boo dee xool dafa géej waaye dafa daan ñu bari. daan na fa guy gi daan fa Sakajor. daan fa les daan fi ñu bari ba récemment nag bi mu toppee di laaj Balla gay di ko laaj di ko laaj di ko laaj ci la bëri ak Sa Thiès mm. daan Sa donc ku daan rakk faaw nga ni nag faaw mag gi mag gi fajal kay ay daanam mm. te xale ci boo ko déree ci mbedd mi sax dana xaar mooy sama mag mm. donc loolu boole na leen mais làmb aussi boole na leen. Hmm. parce que ci kaw bon luur yi fa nekk pratiquement bareetuñu. Hmm. léegi xale yi il faut ñu yéeg fekk si mag ñi. Hmm. boo tey xool tey ku mel ni eh, Sa Thiès ku mel ni Boy Niang ku mel ni Ama Baldé. ku mel ni ñoom soq ku mel ni ñoom Franc ñoom Reug Reug ñoom dañoo war a fekk ñi ci kaw parce que ci kaw Balla Gaye Tapha Tine Bombardier Modou Lo Eumeu Sène Gris Bordeaux ñoo fa nekk donc ñoo ñu rek du ñu bëri. xale yi léegi màgg nañ toll na ni ñoom il faut ñu fekk si leen. boo dee xool kon Boy Niang ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye de làmb boole na leen ci côté yëpp Balla gay nag euh, champion la parce que koo xam ni 2006 nga dugg ci làmb 2012 nga dégg roi des arènes mm. loolu du ay caaxaan 6 ans nga dégg roi des arènes moom rek moo ko def gum ci mbër yi Balla gay heure bu ñëwee ci làmb kuy supporteram di nga kontaan bu simee ko nga kontaan bu bàkk nga kontaan bu bëree nga kontaan mm. kon donc xale yëpp dañuy rêver pour bëri ak moom mm. parce que daan naa champion daan naa Balla Gaye wala bëri naa Balla Gaye ci sama palmarès loolu dafay rafetal palmarès mbër mu ndaw comme ni Balla Gaye ni mu doon wax naan daan bëri naa ak Tyson daan ko bëri naa ak Tafa Tafa Gueye daan ko bëri naa ak nga xam mooy Baboy daan ko loolu ci palmarèsam mm. dafay nekk palmarès bu riche parce que ay mbër yu mag la daan Boy Niang aussi loolu moo nekk bëgg-bëggam kon combat la boo xam ni Sénégal ñëpp ko soxla te keroog ni ñu dëkkante ci face à face bi loolu moo ne combat boobu du yomb te mënta yomb waaw sànq ñoo ngi lay dégg sa biir wax nga ni combat bi est-ce que Balla du ñëw pour fayul raqam. waaw waaw parce que xam nga euh, sport damay gën sax ci cadre lutte mais sport boo bokkee nit écurie hmm. benn mbër bu duggee ci écurie hmm. daan fa kenn. Hmm. tëdd fil bi. toujours mooy cible mbër mi nga xam ne ba fa daan kenn tëdd fil bi. mooy cible am donc tëdd fil boobu nag moom moo war a fajal naqar waa écrit bi rawatina na koo bokkal ndey ak bàyyi Sa Thiès xam na ne moom Balla Gaye ñoo bokk ndey ak baay kon donc Balla Gaye non seulement dafa bëgg a fayul caa Sa Thiès mais dafa bëgg a corriger Boy Niang xamul kon du ma sa morom parce que moo tax loolu rek moo nekk ci xelam loolu rek moo nekk ci xelam. ñu gis Balla. Hmm. Balla nga xam ne bu daan ñëw combat face to face. Hmm. daan mën a show bi. Hmm. tey jii ñu gis Balla beneen facette la indi maanaam dafa ñëw tekk tekkaaral. tekk tekk boobu est-ce que amul lu mu indi. jàngat bi tekk bi c'est normal. parce que xale Boy Niang mu bëgg Boy Niang moo topp Balla Gaye di ko dëkk bëgg bëri moom kon donc te Boy ñaa mooy xale Balla lii lii Boy Niang de Balla Gaye moom laa def ay magam moom laa def Tyson moom la doon def euh, Yékini mm. ku kuy mbër mu ndaw booy bëree mbër mu mag yow yaa yore show bi yaa yore ambiance bi yaa yore tapas bi yaa yore wax ji yaa yore fugg bi. Mm. parce que fugg la c'est très normal moo tax Boy Niang moom moo moom moom noonu mu def noonu dama ci ànd ak moom à 100 pour cent parce que mooy xale te moo moom fu mu fekk Balla da ko war a xañ jàmm. mais est boo ñaa assuré sa communication. non communication mbër xam nga show la nag parce que dañuy jaay combat bi. Mhm. man lépp loo xam ne def nañ ko ci biir ci biir ci biir ci biir fes fesu fes. bu amul mooy déplacé rek. Mhm. leen li ci des yëpp ambiance la leen li ci des yëpp pour jaay combat bi la parce que sponsor bi pour moom it sponsor mën a mën a génn mbër yi ñoo ko mën a jaay ñi nga xam ne tamit aussi dañuy dund làmb loolu moo leen di excité ba ku nekk di xaar ba. yeneen sponsors yi aussi mën a ñëw ñu nekk bitim réew aussi di ko préparer combat bu ko defee coow li dafay bëri làmb ak coow ñoo ànd moo tax dama ci ànd Boy Niang à 100 cent li muy def nii loolu dafay jaay combat parce que Balla loolu la daan def ah kon nag aussi tamit liñ naan euh, buñ la fayee sa bor nga maral li nga leble woon neexul woon <laughs> loolu la rek loolu la dëgg la moom <laughs> ah, ok uh-huh. euh, ñu gis tamit euh, Boy Niang si si ay waxam ne na Balla une minute laa la may non loolu waxu mbër la rek xam nga mbër moom Euh, toujours nu mu mën a waxee pour jéem a pour jéem a pour jéem a merloo adversaire am rek da koy wax mais xam nga ne combat Balla Gaye Boy Niang une minute une minute euh, mënut a jeexal combat boobu mais une minute boobu mu koy may Balla daf ko jiitu ci nam parce que Balla da daan wax mbër deux minutes laa la may Balla nag lu mu sa wax ci mbër def na ko boo ñëwul day ñëw. boo ñëwul mais Boy Niang une minute la maye. Ah, kon nañu xaar ba une minute yi rek. Mm. bés yoo xam ne dina ñëw wala du ñëw su jotee. Mm. te Boy Niang. Mm. fekkiwul Balla. Hmm. est-ce que du affaiblir Boy Niang yàq combat génne Boy Niang ci làmb ji. waaw parce que bu mu bu mu bëree loolu. Hmm. xam nga loolu na nekk ci wax ji rek. Hmm. mais combat lu mu laaj rek. boo ñëwee ba ci biir enceinte bi yéen ñaar lu lu mu bi laaj loolu la ñu war a bëree mais bul ni rek may naa la une minute. loolu bu ko defee ci boobu rek public bi lay bëreel boobaa dootul nekk ci combat bi te loolu bu nekkul ci combat bi rek mun na indi mun na doon handicap ci moom. parce que gis nañ ci face face bi. Hmm. même boo ñaar dafa topp public ba mu ëpp. public hmm. boobu est-ce que du ko nekk benn loo xamante ne da koy pénaliser. effectivement parce que ba mbër mbër léeg-léeg dina mën adversaire am hmm. jekk ko ñëw ba ci làmb ji mu topp topp public bi ba ñu daan ko. di nga topp yaa ko mën dóor ko yaa ko def nii dóor. nga topp dóor yi bañ jàpp la daan la da lay génne ci combat bi. effectivement moo tax question bi nii c'est très important Boy Niang bu mu yóbbu loolu ci làmb ji li ma def ci face face bi bu mu ko yóbbu ci làmb ji na xool ci làmb ji jour bi li mu laaj mu bëree noonu parce que làmb noonu la boo ñëw ba ci enceinte bi yéen ñaar ñoo fay yéen a fay des lu combat bi laaj loolu ngay bëree. parce que boo dégloo waa Guédiawaye li ñu wax booy Niang combat bi wax rek la ci am la ñuy wax. waa loolu nag yooyu moom ay waxu ay waxu supporter la c'est normal c'est normal parce que c'est de bonne guerre parce que boo ko day supporter lu adversaire rek yow da koy jël lu négatif. Hmm. loolu sa lu sa mbër wax nga jël ko lu positif mm. parce que boo demee Pikine ñoom dañ naan booy ñaar li mu wax loolu lay def waa Géejawaay naan wax ji la ci am mm. ñoom it dañ naan Balla tekk ji mu tekk Balla dafay wan ne léegi mu grand la mm. màgg na day bàyyi xale yeeg coow li moom mu yore moom mu yore euh, <laughs> jëf ji donc daal combat la boo xam ne daal euh, fils boo ko bëggee dégg combat boo xam ne daal euh, nit ñi ñu ngi koy préparé premier janvier nag mu nekk dat boo xam ni muy premier jour de l'an nga xam ni date la boo xam c'est date historique ñu war a am combat bu mel noonu vraiment dañ ciy gërëm bu baax a baax baax le promoteur muy Gaston production. état de physique ñaari mbër yi naka nga ko gisee. état état physique maanaam Balla Gaye état de forme effectivement Boy Niang de forme naka nga gisee. Boy Niang indi na doole am na doole xale la. Hmm. tey taay bi tamit macha allah baax na macha allah te xam naa ne bu ne gën a yokk bu gën a yokk liggéeyam bara combat ba dina gën a dina gën a am doole. Hmm. Balla Balla tamit nu ko neex toll Balla nu ko neex toll. Balla su bëggee wàññi poids wàññi poids. mais gis nañ ne Balla kii bi dafa wàññi poids waaw parce que xam nga boo dee bëreek mbër mu mel ni Boy Niang Boy Niang xam nga xale la ba pare dafa mobile athlète la dafa pour mu déplacer wu dafa yomb donc Balla mënut bëri ci poids bu lourd hmm. ba nga xam ni pour mu déplacer wu du yomb te Balla xam nga mbër la moo xam ni dafa dafa dafa moom ci moom looy bëri day tourné. Hmm. Boy Niang aussi mbër la moo xam ni il est trop rapide. parce que si fesi fesi Balla ba mu touché da ngay sentir souplesse bu nekk si moom di nga xam ne kii. liggéey na voilà léegi nag il faut mu jéem a wàññi poi pour mën a tenir ki nga xam ni. moom mooy Boy Niang pour lu ko booy Niang jox mu delloo ko ko moo tax mais fa wàññi poids mais wàññi poids bu ànd doole lay doon nag parce que Boy Niang dafa am doole xale la mais dafa am doole moo tax Balla aussi nga xam wàññi poids muy def na wàññi poids mais poids bu ko wàññee na dugal doole ci biir xam naa ni Balla euh, xam na professionnel la xam na xam na li may wax ni moom moo ko xam mm. combat boobu si lan la mën a jeexee a jeex ci lépp mais ñëpp nag 90 pour cent euh, ñëpp même man li ma jàpp ci bëri lay jeexee parce que ñaari bëri kat la ñaari bërikat la ñu mën nañu xeex rek xeex pour wut bunt la nga xam naa ne bu ñu jàppantee rek combat bi jeex hmm. loolu moom xam naa ci xam naa loolu nee si si face to face bi la waaw mbapat xam nga ah, loolu da koy won ni ba tey rek lu euh, ma sa morom maa ngi fi ma woon ba léegi waaw te xam nga Balla bu ne mbapat la Balla ku ne xam ne ne bu jàppee day bëre Boy Niang tamit bu jàppee day bëre hmm. moo tax bu dee mbapat mbapat mu neex la war a doon hmm. ñun <laughs> daal xam naa ni ñun amateurs yi daal ak yéen amateurs yi ak ñun ñi nga xam ne ñun ñooy reporter làmb ji mm. nañu fexe daal ba bu leen amateurs yi jëppi mm. nanu li ñuy wone nañ ko nañ ko jox amateurs yi ba amateurs yi seen xol sedd la mooy li ci am solo ah, suñ xeexee mm. kan mooy gën a avantage ci xeex boobu même ñaan ñëpp mën nañu xeex booy ñaaw mun a xeex parce que booy ñaaw ba xareel mbër la moo xam ne day xoolee liir ku xoole bi mu bëri Sa Thiès Sa bi mu jaayoo dóor ñaari coup loxo yi bu ñaari loxo yi jàppatul dóor rek. Mm-hmm. ci la ko bëtt jàpp daan te booy ñaa daf mun a xeex. Mm-hmm. parce que booy ñaay booy ñaa boxeur la boxe la doon def avant muy bëre. parce que moom booy ñaa sama doom la sama jarbaar la maa ko yar. Mm-hmm. Euh, ma yar ko. a def. kon donc mën na mën na xeex Balla Gaye ku ne xam na ni actuellement fii mu toll ci làmb. mën day xeex day bëre. xoolal barki dem li bëri ak Gris Bordeaux. am njaay indi jóob ku pañi tàkk. ba mu kaaw moom mais ci biir kaaw bi mu amaat réflexe ba kaaw Gris Bordeaux mais boobu noonu dafa mel ni état de physique bi hmm. demee fa woon noonu waaw parce que xam nga ñaari boobu ñaari luur lañ hmm. xam nga ñaari luur bu ñu dajee hmm. ñu bëri lu ëpp 10 minutes il faut ñu xoox xam nga def fois pois yi ëpp si tamit bu leen fàttali leen bul jàpp ni Balla Gaye bi nekkoon 2006 nous sommes en 2022 dootul xale Balla dootul xale nag dootul xale physique bi yaram bi sa très normal muy ñëw parce que looy gën di màgg di gën a kii di gën di am yaram. mais tamit boo amee benn hygiène de vie. Mhm. ak loo mënti dem di nga mën a am benn forme boo xamante ne yaram bi na ànd ak doole. Mhm. supposons ku mel ni Bombardier. Mhm. Bombardier léegi am na plus ans. mais ba léegi dooleem mi ngi moom. xale yu bëri fii Bombardier moo leen ëpp doole parce que hygiène de vie dafa am solo ci nit. ak aussi mbër aussi ngay tëdd heure di lekk heure di entraîner heure lépp nga di ko def normal. boo ko def mun nga téye sa doole mun nga téye sa kattan ba keroog ngay génn ci làmb ji sax sa doole xoolee mbër yu bëri amuñ hygiène de vie mhm. parce que dopage yu jël mhm. après soo xoolee mhm. d'ici à 3 4 ans 5 ans dalay sonal parce que xam nga nit dër boo dugalee sa yaram lu bokkul ci sa yaram rek day parce que nag mbër da ngay euh, sa sa sa sa sa sa que sa kattan bi la yàlla jox lu naturel bokkul ak lu naturelul loolu moom conseil la boo xam ne dama koy jox mbër yëpp parce que organisme doole jarul ngeen def yenn dopage yi jarul hmm. ngeen jël yenn protéines yi jarul ngeen jël yenn yoo xam ne après daf lay dafay def ay séquelles ci sa yaram hmm. parce que du bu jàppul sa yaram jàpp sa yax hmm. te yax mooy nit yaram bi habillage la mais yax bi mooy nit kon mbëri encore une fois rek nañu gën a góorlu di def lu naturel parce que lu naturel dafa am solo parce que organisme moom la